ñaar fukkeelu guddi ak benn ci weeru koor ak naafila yi ñeenti rakkaxa rek lay doon rakkaxa bu ci nekk da ngay jàng faatixatul kitaab benn yoon jàng xul huwallaahu ahad ñaar fukki yoon insha allahu rabbi ñaari rakkaxa doon benn sëlmal rakkaxa bu ci nekk da jàng faatixatul kitaab benn yoon jàng xul huwallaahu ahad ñaar fukki yoon nga sëlmal ci kàttanu yàlla ah, ñaan yàlla sama borom defal nu tawféex defal nu kooru jàmm yàlla nañ ci dugg ci bismillaahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin di leen jox rendez ci ñaar fukkeelu guddi gi ak ñaar ci weeru koor bi njëriñal naafile yi nga xamante ni mu ngi ci biir téere bi di Qurratul Ayni bi lépp loo xamante ni rek lamboo na ci ay njëriñ ki barke ak i teraanga ki xéewal ci biir naafile yi danañ ko indi di leen jox rendez-vous rek ci ñaar fukkeelu guddi gi ak benn ci ñaar ci weeru koor bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu